ku ndóbin rey sa maam foo seen lu ñuul daw Samba Fall la ñuy wax stop parce que Mbour nag santul Fall te estate bii nii ñun jeunesse bi ñun ñoo ko moom ñun waa mbuur ñoo ko moom ni mu mel nii ne ñu mu lañ ñu bàyyee lañ bëgg ñu bàyyal ñu ko du fekkente ne maire bi fi nekk amul vision pour dem uti ay partenaire ñëw defaral ñu stade bi nga xamante ne moom lañ soxla wala teg fi ay projet yoo xamante ne Mbour waay yi dañ ci gis seen bopp loolu lañ gën soxla que ñu jël suñu stade bi bu ko jox benn Samba Fall mu bu tabax ay projet Samba su amee projet na dem ci biir Mbour am na ay espace mu jënd fa ay espace tabax projet comme ni ko jàmbaar defee comme ni ko waa génération foot defee boo soxla espace da ngay dem nga jënd ko de ce fait que kenn du la interpellé Auchan bi ni ñu ko joxee ba fii may waxee yow amul benn jeune bu la mën a taxaw wax ne lii moo nekk ci protocole d'accord bi entre Auchan ak commune Mbour lan la ci Mbour gagné lan la est-ce que engagement yi Auchan jëloon est-ce que respecté na ko la ñuy bañ mu dalaat ñu li nga xamante ne mooy bëgg am fii ci projet bi yëg nañ ne Samba am na fi projet 7 milliards. moom ak euh, ak ak ak le maire Fallou Sylla ñu ngi xool nan lañ koy ruuma daatee ba récupérer suñu stade bi jox ko Samba Fall bi yéen la ñuy waxal ñun li ñu mën mooy di alerter li ñu mën mooy di dénoncer lépp loo xamante ne ñu ngi koy dund ci biir dëkk bi jeunesse su Mbour dañ leen wax yaa xayti ngeen jóg yéen a ngi ñëw ci stade bi seen ay doom ñëw fi fubal seen ay raq ñëw fi fubal amul kenn koy seetaan vidéo bi te ñëw stade fan yi gis ngeen ni mu mel barki Demba Ndiaye mat

jox ko ben promoteur bu tuddu euh, entreprise bu tudd Ndate Dieng ñu ngi ji xeex bi ba paré guñ ñu bëgg jël suñu stade bu ko joxe. vraiment dañu sonn ci jaay bi Fallou Sylla bu sonnoon ñun sonn nañ bala ma dé fallu Fallou Sylla ñëw naan ñu ay li signé wu ma ministre du sport moko ko signé Fallou Sylla mom nañuy interpeller directement c'est le maire de Mbour avec le préfet. sonn nañ jeunesse bi sonn nañ ci mbirum njaay mi nañ bàyyi suñu espace yi ñuy jaay bu dee amuñu benn vision nañ ñu may bàyyi suñuy espace ñu bàyyil ñu ko bii yoon bañu ñu ci dara